jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme nuñ koy defee saa su ne ñu fii nag ci rëbës ndaysaan seet si fi kenn koo xamante ni oh daaw def saison bu garaaw dafa bëreeg maam Balla noo rëkkil ñàkk ko ñëwaat def saison bu baax bëre ñaari combat daan xale bii nga xamante ni mooy fëgg la daan naare sokaas moom mooy double moteur xale bi rëbës bu génnee rek ah mbooloo mu bari jóg topp ci ginnaawam double maa ngi lay siyaar. maa lay delloo siyaar di nuyu di nuyu mbokku internet yi di nuyu waa Sénégal di nuyu waa adduna yëpp di nuyu sama sëriñ maam Thierno Mbacke imam waaw di ko ñaanal mu yàgg fi loolu daan ak wér ak njabootu Cheikh Modou Kara Mbacke bi yëpp waaw maa ngi siyaar ñëpp daal di nuyu ñëpp. Euh, daaw nga def ñaari komba ñaari victoire. ren ba léegi dafa mel ni dégguñu komba double moteur lu waral loolu. waaw dëgg daaw def naa ñaari shot yi yàlla suturaal ma ren nag ñu ñuy wax ay combat boobu léegi mais dafa sotteegul rek mais ñi ngi am yaakaar nag waaw boobu ba léegi. parce que boo jugee ci naaru sokaas daan ko jël fëgala daan ko ñu ne ñi nga jël ñooñu ñoo la mag ci làmb ay mag lañ ci làmb te ku ne xam ne ne fëgala ndaanaan la ku xam Narou Sogas xam ni la ma koy nuyu au passage fëga la borom États-Unis ban nga am ci yooyu. waaw loolu ciy sant yàlla rek ñun ay ndaw lañ ay xale yu ndaw bi ñu duggee si làmb yàggul ñun presque 2015 lañ dugg kon suñ demee tamit bay bëreeg suñu ay mag rek loolu dañ ciy sant yàlla waaw parce que te buñ tëb tamit di bëreeg suñu ay mag ñun dañoo bëreeg suñu ay morom waaw ba jeexal leen làmb boole ñu ak suñu ay grand ñoom tam ñu nekk ay grand ñàkk ki ñaan may ñu chance ñu bëre. loolu kese la. Mhm. ñu may la sens nga bëreeg ñoom euh, daan fëgg la mu mu weddi na jël bi yow yaa ko njëkk a daanoo quatre appuis am na wala amul fëgg la dugaloon na recours wala jotoo ci xam dara. waaw yooyu nag man du ma ko bàyyi parce que làmb ji ñëpp gis nañ ni mu demee xam nga waaw làmb ji ñëpp gis nañ ni mu demee quoi moom suñu grand la suñu lépp la xam am na yoo xam ne nii tamit mën nañ ñàkk quoi làmb ji ñëpp gis nañ ni demee dama ko daan jël bu leer naa ñu affaire yooyu xam nga foofu benn benn chute fa ñaari chute amu fa waaw. li nga daan fëgg la jëm fan. waa ci gaay rek gaay ci kaw rek man moom xam nga instant yii nii tamit def naa ay preuve yoo xamante nii gaay ci kaw ñoo ñu war a may chance ñu bëre instant yii moom loolu rek man moom wax dëgg yàlla li sama kanam laa xool wax naa ko dama koy waxaat xam nga am na si ñoo xamante ne rek ñu ngi dox suñu ay waaw ku ci mel ne ay ama neex ay musaan dooy xam nga ay Modou Anta man ñooñu laa war a bëreel parce man dafa am ñu topp sama ginaaw am lu ma yaakaar waaw su ma jógee ñëppay jóg li may doon doon gone su ma jógee ñëppay jóg quartier bi ñëppay jóg kenn du des bàyyi seen yitte yëpp di ci jàpp xam kon dafa ñun dañoo bokk ci làmb daal dafa jot kon grand yi ci kaw may ñu loxo ñu bëre waaw loolu kese la. nga lim ñett mbër yooyu ah, double moteur daan jokkel ñu wax mu ne la man du mu ne maam maama Lamine daan jokkeel ñu wax mu ne man double moteur la soxla su bëggee mu ñëw ma defaral ko comme fi may jaaree ay morom nga doom morom moom lu tax nga ni doom moromam. waaw ah, loolu ñu ngi sant yàlla rek maama Lamine bi muy bëree bëriwuñu moo ñu jiitu si làmb fop xam nga bu taxee moom nag danga koy dégg muy wax rek na baay wax ji te xam ni wax moom bu nee bàyyi faa la am na yenn wax yoo xam te ne mën na ñàkk quoi ñun ay nawle la ñun ñëpp ñoo far. comme non maa ngi ko dégg say interview muy wax ay genre yenn waxe naan ay double matul mbërëk nii la toll ak genre affaire yooyu xam nga te moom mooy wër fu nekk di ma laaj di wër di wax te Mama Lamine war naa ni man ak moom bu ñu si néeg laa la wax de dix fois laa bee bunt bi dañ may fekk ci <laughs> wallahi azim. barki yaa rasulillah mais xam nga rek bëgguma di wax moom quoi mais na bàyyi wax te xam ne man ak moom bés ñu bëre dinañ bëre yaa ngi dégg mais dafa jotagul pour ñu bëree mu ngi maa ngi koy dégg nag say interview muy wax ay double tapette laak ne man dama amul jotam rek dama ko talul moo tax booba léegi ma mais fukkam man ragal de non man amul lu may ragal amul lu man doomu rëbës laa fi laa fi laa yoroo fi laa màggee amul lu may maan man xaw ma sax ragal xam nga mais man dama am staff am ñu topp sama ginnaaw ñu may teg ci yoon ñoo xam ne ñoo may teete mbapat ba léegi ñaan man fii ngay jaar foofu laay jaar bàyyil fii bàyyil fi loolu kese la waaw mais du ay question da ay ragal wala dama nam aw ma ku may tiit ci làmb wala ku may ragal ci làmb gisuma ko waaw parce que nit la rek noonu la demee mais man dama am am ñoo xam te ne ñoo may teg ci yoon mais bu sama staff doon wax ci moom wala dara nii wala suñu combat taxoon ñu boobaa dina din boobaa li may wax nii si dina di ko xam. Mm-hmm. xam naa ne de boo déplacé woo moom ba jug Fass geeg Rëbës geeg ñëpp topp sa ginnaaw te it Maama Lamine bu jugee Langsar gépp ànd ak moom déplacé wu. ànd te yéen ñaar combat wu xale la waaye nag wolof daf ne borom bitigu mbagg boo gis boo xaree dënn ba magasin nga ciy fekk tey ni nga laaj ci làmb jaadu na nga laaj leen wara mën a bëre moom ku ci mel ni Modou Anta bu Thiès ku ci mel ni Moussa Ndoye ku ci mel ni euh, nu mu ama neex ñooñu jaadu na ñu bëre ak yow mais est que ñooñu buñ paree pare nga pour bëre ñoom. bien sûr pare naa moo dama leen di laaj man ñooñu laa war a bëreel man tollu ma fu may maye sens ci làmb man booy bu ndaw laa demaguma fenn. wax naa la ko sànq 2015 laa dugg ci làmb barki Seydou Naama làmb yi bu ñu doon génnee ñu fi gën a nekk xale laa la wax wallaahi azim si laay bopp barki Serigne Touba mille 2015 laa dugg ci lamb ñooñu ñu ngi lim fii ñëpp ñoo ma njëkk a bëre téeméeri junni yoon bi ñuy bëre xalaatuma sax tax ngemb mais am na loo xam ne yàlla moo koy def quoi man essence yi tollu ma fu may maye benn mbër sens man ñi ci kaw ñoo ma war a may sens parce que xale laa maa ngi def samay preuve maa ngi bëre daan su ma ñëwee stade damay mobiliser man amul benn promoteur bu ma mës a tëgg mer ci man promoteur bu ma tëgg da ngay am satisfaction da ngay ci man moo tax chaque jour promoteur yi dañ may woo man ku ma a bëral moom laay bëral dama koy wax tout le temps parce que tey jii làmb dafa toll foo xamante ne tey nii sponsor yi daw na ñu ngi ñu ñu ñu ngi koy ñaan au passage tam sponsor yi état bi jàpp ñu ñëw jàppale làmb parce que làmb dafa metti mais des na tuuti la doo jënd ay billets pour nga bëre du est-ce que yaa may dégg te ñun dañuy ñun lu ñu fay dañ koy jël dañ koy billet promoteur yi mooy mës tëgg ñu mooy dégg te xam nañ li may wax combat bu ñu mës tëgg laa la wax yëkkati lépp lu ñu fay rek lu ñu fay jënd nañ lu ñu toll ci ay billets. kon yow su ma déggee wax ji mooy yow yaay sël mbër bi nga xamante ni yaay fay sa bopp. barke Serigne Saliou Mbacke chaque combat laa la wax man dinaa yëkkati lu mu néew néew néew néew néew yëkkati million ko billet yoo te promoteur yi ma mës tëgg yëpp mën nañ seede li may noonu mbër mag yi sax duñ ko am na mbër yu mag laa la yu nekk fi fay ko ay millions yu duñ ko def kon tey jii ñun dafa jot tamit ñi si kaw mooy ñu loxo bëree loolu la rek parce que ñun bu ñu bu ñu ñëwee estade ku ne xam na ne bu ñun estade dañ koy taaral dañ koy duy ba mu fees dell day neex yàlla mu ngi ñuy suturaal ñu nga am ay ndam kon leneen desitu bi dafa li des du leneen loolu gars yi ñu chance te gars yi kaw ba ñu ñu bëreeg ñun parce que ama neex bu ñu ko seetee ba ñuwul bëreeg ñun Moussa tamit bu ko seetee ba ñuwul bëreeg ñun ñoom ñëpp pare nañ pour bëre ak ñun instant yi si promoteur yi la dox am yoo xam nag ñu ngi dox combat yi kon amuñu dara luñ ci wax lu dul di toog di xaar rek xam nga di am yaakaar tamit mu sotti di ñaan yàlla tamit mu sotti ndax mooy li ñu gënal waaw ndax xam naa ne ñooñu moom ku ci ñëw baax na ku ci ñëw tamit da ngay bokk ci lim bi rek waaw. kon combat bi bëgg naa xam ni kon bu yéexee du ci yow la yéexee. non non bu yéexee du ci mën la yéexee. waaw parce que man jox naa sama accord ndax ñooñu man maa leen laaj ñooñu man maa leen laaj pour bëre ak ñoom ñoom it ñu xam ni laaj bi ma leen laaj jaadu na ñu a petit la daal grand ñoom xam nañ ni carrément laaj bi ma leen laaj jaaru nañu accepté pour bëre ak man promoteurs yi instant am na nag promoteurs yoo xam te ne ñu ngi koy démarché ñu ngi koy dox waaw comme nag dañ koy dox te sotteegul doo ci wax quoi waaw mais nag ñu ngi am yaakaar nag bu baax a baax a baax. Mhm. sa combat combat bu neex la boo xamante ne askan bi soxla nañ ko askan bi bëgg nañ ko rawatina képp koo xamante ne amateuru làmb nga euh, bi ngay bëreeg fëgg moo nekkoon sa ñaata combat. sama combat Feugeuleu moo nekkoon sama dixième combat. nga am ñaata victoire. man neuf victoire la am benn défaite. ma la daan. Mame Balla no recul moo ma daan. Mame Balla no recul moo ma daan. fu ngeen bëree woon stade Demba Diop. non Iba Mar lañ bëre. man ak moom Iba lañ bëre mu ñàkk mooy sama première défaite. waaw par décision arbitre. parce que dañoo bëre ma dóor ko ku ba mu ba mu kaaw ma daw di ko song mu fël ma wër ma wër ma jàll mu wër ma ndomb ma wëree ndomb nag daf ma dóor ku irrégulier ci loos la ma dóor arbitre yi àtte quoi boobu foogoon nañu sax dañuy bëriwaat après si lañ ko jox victoire bi. non mais est-ce que nekkul da def carte appui bi nga bi mu la wëree ndomb. non non defuma carte appui de defuma carte appui de ku irrégulier la ma door loolu règlement CNG la quoi suñ la wëree ndomb buñ la dóoree buñ la dóoree ay coups buñ la dóoree yenn coups yi dañuy tas waaw. wa mais foofu tamit arbitre yi tamit dama lañ ciy condamné benn côté. parce que dañ ne mbër buñ ko wëree ndomb buñ ko dóoree sept dañuy tas combat te combat boobu mën naan bi ma sa waay wëree ndomb dóor na ma 32 coups 32 coups la ma door bi mu mu demee nag ba dóor ma ci loos ku régulier fii c'est le arbitre yi tas làmb ji man foogoon naa ne sax dañuy bëriwaat ñu yëkkati loxoom mais loolu ñu ci sant yàlla rek ñun ay xale lañ loolu lañ ciy sant yàlla xam na xëy ni tamit xëy na loolu moo gënoon si ñun yàqaluñ dara suñu yoon Mame bu ñu daanee war nañoo daan ndax moo ñu jiitu si làmb foofu xam nga ba muy bëre bëriwuñu kon suñu moyen sens daan ñu loolu noonu dañuy nekkaat suñu yoon liggéeyaat rek xam ne làmb moom am nañ si cër te booba léegi tamit ñu ngi suñu yoon di liggéey suñu liggéey di béy suñu waar waaw. nga jógee ci Mame Balla jël Naaru Sokaas Naaru Sokaas ñu ci bari jàppoon nañ ni combat boobu du combat ci double moteur ndax prip dib la waaw noonu la mënoon demee parce que ñun ay xale lañ xam nga ñun ay xale lañ te bëre xale ak mag chaque jour noonu la war di demee waaw national bi ñu ko jëlee tamit noonu la demee cool yi bëri woon na wax ji bëri woon na mais ñun xamal nañu bu ñu jàppante tamit ñun ñoo ëpp avantage parce que ñu koy nuyu à passage mu nekk grand bu baax bu ko du ñu may chance parce que si defet lañ jóge woon mais mu may ñu chance yàlla suturaal ñu may suñu ndam mu nekk jantal grand même bu dul làmb sax moom fu ñu gis ñu daan gis di ñu conseillé xam kon bu demee ba làmb boole ñu tey jii ba yàlla ma ñu si ndam tamit mu ñu lulul tamit wax ci moom lu nice parce que jantal grand la waaw ma koy nuyoo passage bu baax a baax. Double fi mu toll nii mu am lu ñu jaaxal ci làmb mooy ni làmb di doxee nii ndax saison ku ci mel ni Double Moteur saison bi bu jotaan mun naa bëri ñett combat wala ñaari combat waaye fi toll nii sa benn combat sax dañ koy xoolaat lu waral lool jafe-jafe boobu ci yow la wala ci li ngay laaj ci kase dafa bari wala nu mu demee noonu. waaw loolu dañuy sant yàlla rek mooy li ma la wax sànq làmb nag moo changé quoi loolu du ci mën kese boo xoolee tey jii nii bëri na mbër yoo xamante ne ñu ngi fi amuñu combat am na mbër yoo xamante ne ñu ngi def ay année balance ay ñaari yoon année balance ay ñetti yoon année balance te ñun yàlla def na bu ñu jugee si làmb ak léegi defaguñu année balance xam nga te mbër yi def année balance gënuñu leen te ñoom tamit gënalu leen ku soñoon tey jii nii di entraîné chaque jour boo soñoon dem combat di bëre mais làmb moom moo doxee noonu te làmb ku ne xam ne ni jamono yi ñu toll nii dafa xaw a metti comprendre nga bëri ay ñetti combat wala ñaari combat yombul moo tax soo ko tamit sant yàlla ko ci am moo la gënal mais ku ko ci amul tamit boo amee benn combat da nga xam ne tamit làmb moo moo rek moo toll foofu noonu instant bii ñu toll nii waaw mais bu doon bu njëkk ni instant bi nii kon combat yi dina gën a bëri daal. Mhm. ban relation nga am Bégé Fall na nga ci aar ban relation nga am ak mbër yi nga xamante ne ñoo dëkk diggante Fass Medina Colobane Gueule Tapée mbër bu jugee foofu rek buy ñëw ma gis double moteur ci wetam rawatina démb ci open press à de face bi gisaat naa la fa ba relation nga am ñoom. waaw relation mooy double doomu Medina Fass Colobane Gueule Tapée Rebeuss la ñun do man doomu fii laa quoi ba pare man nekkoon naa Fass tamit nekkoon naa Fass yàlla moo def bëree wu fa arène nag suma faa bëre mais nekkoon naa fa bi ma fa nekkee après suñu koñ bi ma amee écrit suñu écrit ba may këyit si laa ñibbi si ñëw sama koñ. si la njëkk a bëre mais nekkoon naa Fass moo tax relation bi tamit rafet bi ma fay jugee tamit jugee bu naa laa fa jugee aw maa ngi ñoom xaaral ma yàlla man sama combat yi mujj ñoo koy préparé ndoo bu ma amee combat ñoom Serigne Ndiaye dañuy ñëw sama école ay ñoom Forza 2 ay ñoom Forza 1 ay ñoom Baar dañuy ñëw sama école di ma jàppale ay contact yooyu noonu ñoom tam ku ci am combat noonu la dañuy daje géej wala ma dem seen école leen jàppale ay contact waaw relation boobu mooy continuer ba tey lu naaj lañ seex lu rafet lañ seex jàmm ak salaam Ada Fass nag day sunu rak waaw de suñu rakk nekk booy boo xamante ni booy buñ jox cër la moo tax bësam ni moo tax bësam ñun tam dañ siy jàpp bu ñu xewlee moom tam kenn du ko fi jiitu sama open press gis nga ko kenn jiituwu ko fa xam nga te da ciy ñëw ànd ak mooy loolu noonu moo tax fii benn lañ quoi waaw ñun ñëpp benn lañ mooy loolu noonu moo tax ku ci xewle rek dangay gis yeneen gars yi ginnaaw waaw noonu la demee rek. xam nga ki muy bëreel Bébé Bismi Ada Fass. Bébé Bismi waaw xam naa ko xam naa ko bu baax a baax ndax moom laa bëreel sama premier combat sama premier combat arène moom laa ko bëreel. daan ko. Ada Fass jël ko njort nga ni dina ci am ndam ndax bébé Bismi dafa am lu mu guuxal Ada Fass. waaw am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que Ada xale la. te liggéey na li mu war a liggéey parce que saa lamb ji moom instant bi li ci des moom ñaan yàlla moo ci des parce que ku ci nekk pare nga. waaw bébé Bismi pare na waaj na Ada Fass tamit pare na waaj na. kon ñun mënuñu lu dul ñaanal Ada Fass yàlla sutural ko may ko ndam parce que xam ni lamb ji da koo soxla am na fu mu jëm am na lu topp ci ginnaawam kon confirmation rek la war a wone samedi incha allah ñun nag ñun ñaan lañ mën rek ndax du ñu dugg si géew bi lépp li nga xamante ne mun nañ ko si suñu doole ak suñu xam-xam yëpp nañ ko ko instant li ci des du lenn lu lu jur ju jot ñu ñaanal ko yàlla mi may ndam mu may ko ndam lu sedd guy ci kaw bébé bismi mhm. ban nan la ban stratégie la war a mën a teg Ada Fass ba daan bébé bismi bu doon yow. waaw loolu nag moom du ci mën a sori mbër la champion la ndaanaan la mais am na encadrement am na ñu ko yor am na ay yu nekk si am yu ko yor te moom l'essentiel daal xam na bis bi mu ko jaral te xam na bis bi li ko ci war waaw kon aada moom ken du ko jàngal li mu bëree ken du ko war dara lu dul teel nga koy wax aada ku ko yóbbu ci làmb leen nga koy wax teel lu dul teel doo ko wax parce que doo ko conseillé ni ko nii ngay bëree xam ne bu jàppee xam na lu mu war def moom amoo loo koy conseillé waaw lu dul teel rek lañ koy wax di ko ñaan yàlla mu teey yàlla may ko ndam kese waaw. ñu lay jaajëfal di kontaan ci invitation bi ak bi biñ jàkkaarloo ci wasaare làmb noo gisee wasaare làmb ci làmb. waaw wasaare làmb moom dëgg yàlla moom ñun seen liggéey nice na ñu ngi gis ngeen di def lu garaaw lu extraordinaire xam nga ñu ngi leen di suivre bu baax a baax a baax a baax dëgg yàlla dañ leen di suivre ñu ngi leen di gis ngeen def ay interview yu am solo xam nga di génne mbëri di leen jëli ñu gis tam ngeen di topp lutte simple bi surtout di dem fu nekk man dama leen di suivre bu baax a baax mu nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla moom loolu contentement lañ ci am te yokkute làmb la ñu ñaan yàlla rek site bi yàlla dem ba doon ay télé télé xam nga yéen ñi nga xamante ne yéen si nekk di bay seen waar yàlla suturaale ngeen dem ay contrat yu mag a mag dem bay sponsor di ñëw di sponsoriser site bi xam nga parce que yéen a ngi jàppale làmb yéen a ngi jàppale jeunesse bi parce yemu leen ci bëri dóor bi rek yéen a ngi dem ci lutte simple bi yéen a ngi ñëw ci open press yéen a ngi xam interview mu bëri loolu yombul kon dañ leen di ñaanal rek suñu borom xam ma yëkkati ko mu dem ba nekk ay télé yu mag waaye sponsor yi nag ñëw di wax sponsor yi nañ ñëw ci wasaare lamb jàppale wasaare lamb te xam ni mu ngi jàppale mbëri mi ngi jàppale lamb ji waaw. moteur ñu ngi lay jafal xanaa ñu bàyyi la nga tàggoo rek ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqaliko. waa tàggoo bi du lenn loolu di bëggee sama fan si di leen siyaar di wax gars yi ne ñu ngi dox combat yi am nañ yaakaar ni combat yi dinañ sotti na seen xel dal année balance moom incha allah duñ ko def. bu neexee yàlla moom am nañ bu baax a baax du yàgg dara di ngeen dégg combat Double Moteur taxaw na parce que ñu ngi koy dox te am nañ si yaakaar bu baax a baax a baax a baax incha allah rabbi parce que chaque jour gars yi tamit ñu ngi may wax combat combat combat combat combat combat supporters yi chaque jour. dañ may wax fu combat yi toll fu combat yi toll xam nga moom ñoom namm nañ ko lool mais nag luñ ko namm benn rek man maa leen ko gën a namm fuuf xam nga mais lépp loo gis ndànk-ndànk la rek te amaana tamit lii ñu yóodoo amaana tey jii moo gën si ñun kon ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla motali lépp daal ba li ñuy am yaakaar ni mu sotti taxaw incha allah ci kàttan suñu borom nañ gis leneen lu bokkut ak li ñu daan gis parce que saa yi gars yi pare nañ daal waaw di ñaanal tamit mbëri écurie Rebeuss ñu nekk écurie Rebeuss yàlla may leen ndam xam nga ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla suturaal leen may leen ndam ñeemagul combat amay combat yàlla may leen ndam di sant suñu entraîneurs yi bu baax a baax ku ci mel ni ay Balla Diop Ibra Faye Cheikh Diaw ay Talla parce que ñun dañuy sonn suñu ay sëñ Mbacke xam nga ñoom dañuy sonn si booy cinq heures la ñuy bàyyi seen liggéey di ñëw di assister booy te defuluñ leen dara du un franc bu ñu leen di jox te dañuy bàyyi seen liggéey bàyyi seen lépp di ñëw te du dërëm bu ñu yëkkati di leen ko jox des fois sax ñu am ak ñoom ay réeróo ñu wax ñu lii ñu dëgër bopp def leen teewul dañuy ànd ak ñun mais loolu noonu yëpp tam ñu leen di xamal ne tey jii ñun ñun ñun ay ndaw lañ rek waaw suñu xel matul ñoom ñoo ñuy comprendre benn instant ñaan yàlla benn seytaan la dem bañ a dugg suñu diggante trajet xamante ne ñu ngi si écréose mu ngi si ñu ñaan yàlla mu continuer yàlla mu ñuy suturaal ñi nga may combat ñi nga may ndam yàlla ndam yi si barki borom Tuubaa loolu la ñuy ñaan jërë ngeen jëf mbokk yi yéen a ko doon laaj mu ngi noonu doom doomu rëbës ki di double moteur mbokk yi dégg ngeen lépp loo xamante ne waxtaanee na ko ci làmb ndeysaan xale la boo xamante ne xale bu yaru waaye bu duggee ci làmb nga xam ni xale bu am mbooloo la te bu jógee rëbës gépp dañuy jóg ànd ak moom rawatina Colobane góor Tapée Médina gépp dañuy ànd ak moom xale la boo xamante ni ana balance am wóor ci làmb waaye mbokk yi nee na. dina bëre ci saison bi incha allahu rabbi kon noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb ci wasaare làmb sëñ Bas jaajëf.